Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Djanga du Tedegu. Notre force. Le traitement de l'info. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. يا همة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنازل تتلنا بزفر mbokk yi topp seen téere biir yi alaxdar yi Uras Info ñu ngi ñëwaat ak yéen gannaaw bi ñu leen nuyoo ziyaare leen ndokkeel leen ci seen darsu saani yi mooy leçon numéro deux ci laxdar yi emoon nañ ci seen leçon bee passé ne bokk na ci li nga xam ne nit ki waru koo wax mooy naa toog ba yàlla jubal ma parce que loolu dafay bokk ci mandargaay texee di mandargaay gàccengal waaye mandargaay gàtt gis-gis ñu continuer seen leçon ba léegi ñi nga xam ne ñoom téere bi di mu def mu taaba bu ngeen ubbee mooy page 3 rek waaye ci téere bu ndaw boobu nga xam ne téere bu yomb la 400 francs lay jar ku nekk mën na koo jënd di ko topp ala ndax fii bëri na njëriñ yi nga xam ne nekk na ci surtout ci ay set détails yi nga xam ne la jafewul te neex na jullit bi di ko topp ngir man si am njëriñ xam nu muy jullee xam farata yi xam sunna yi parce que lépp lu bëri mu ngi ci mi ne wajibu dana war alay ci moom xifzu lisaanihi mu topp làmmeñam mu wattu làmmeñ afoon mu wattu làmmeñam minal faxsaa'i ci lu bon wal kalaami wa yu ñaaw jëf ju bon daal lépp lu amul njëriñ julli wat na ko moytu yaamu ci làmmeñam waaye rawatina nag ñu nekk ci jamono ja nga xam ne sax muy jamonoy weer koor moo tax téeréel ba nga xam ne dafa am mawdu ya ma daa iman li muy wax jamono ju ne heure bu ne rek day nekk munaasib kon ak kalaam wax alxabih ñaaw wa ay maani ak ngi ñu fase loolu julli war na ko moytu wax yi nga xam ne rek amul benn cosaan di ko fu ko fooyee lislaam dafa am la nga xam ne da ko da ko def ba pare sàmm ko bokk na ci muy sëy parce que sunna la takk jabar sunna la rafetal diggante nit ak nit yooyu lislaam da ko def pare mu def ko ñu war ko rafetal kon lépp la nga xam ne da koy doyalal nit war na ko moytu wanti xaari ak waaw wa intihaadil muslim ak di ko doyadal di ko gëdd di ko fitnaal wa ihaanati ak di ko doyadal di ko wax wax ja nga xam ne da koy da ciy gis boppam comme ñenn ñi maay diw doomu diw wala yaakaar nga ne yow kilifa ngaba nga xam ne da nga am foo nekk moo xam ci nguur la wala ci askan la wala ci alal la ba tax ngay doyadal jullit ñi wala nga di wasab bi di leen saaga wala di leen ragalloo boo ma laalee man procureur sama nangam la procureur sama nangam la police commissaire sama nangam la man maay doomu diw man may doomu diw yooyu jullit war na koy moytu loolu na fi reeri sar xaqi sariya loolu xaqi sariya nit ki nag war nañ koo fàttali war nañ koo jàjji war nañ koo tiital ci lan ci xaqi sariya di ko wax nag li yàlla digal dig dikk ñi nga xam ne ñoo koy jaamu waaye di ko parfois nga fàttali ko bariran basir bashiran wa nadira parfois diko ko xub bégal parfois tam diko ko lolou fekk haq xaq ala lolou islam mayna lako bu lolou nak loolu nag daganul mu ne dana war alay ci mom ci mukallaf bi batay lay waxal hifzu mu wat basarihi gisam mina nazar ci ila ilal haram ci li nga xamne dafa haram waaw bañ ko def rek xolu jiwu puy wala gànna puy waa ji ñu ne xol bu ñëk bi l'islam nga ci em ci ndaw si ñam ciol mu bon nga sëggaat loolu dal mu njëkk ba lislaam may na la ko waa jibi puy siggi rek xool xale bu jigéen mu koy xool waa ji ne ko xee doy na mi ne ko maa ngi ci xool bu njëkk ba loolu xam nga ne ay caaxaan la loolu nañ koy bàyyi du jafe la nag seen réew mi parce que ñu bëri ci jigéen ñi léegi seen ak colin doy na waat waaye nag jullit bi moom xam na boppam xam nga sa bopp bu baax kenn ku nekk bal insaan ala nafsi basira waaw jëruñu si sori mu ne wéy jib dana waa ali ci moom xifz mu watu basri ak gisam mi ne nazara ci xool yi la xaraam ci lu xaraam wala yaxilu dagan lahu ñeel ko moom mu mukallaf bi an yandura mu xool ilaa muslimin cib jullit bi nazratin cib xool tuusi bu koy lor bul xool sa mbokk jullit mu xool ba dana ko lor ilaa an yakun loolu dafa nekk nag faasixan ab kàccoor bu dee ab kàccoor nag mu ñëw ngeen xam ne bu jotaay bii bu fi yàggee wala kàndandoo gi bu fekkee mu ngi ànd ak yéen mën naa soppi jikko yi mën na am lu boobaa nag xatal leen ko poussé leen ko mu benn premier pexe mooy fexe leen mu top bàyyi lam ne nekk ci yéen bu ko mënul bugg leen soppi fexe leen ko génne seen mboolem parce que bu yàqee li ñuy wax benn pomme de bu nëpp dafay yàq saako pomme de terre mais bu baax dafay dafay dagan xijjaanu ngeen gàddaay ko nag baleen ko waaye jib dana waat alay ci moom mu kallaf ba léegi xefzu mu wattu jami am mboolem jawaaji ay cëram mastataa la man nit ki war nay wattu ay cëram ci la man cëram ci xool la xam ne daganul cëram ci kàddu la nga xam ne day lore cëram ci dox la nga xam ne dafay yàq cëram ci def la nga xam ne ci loxoom moo xam ci léppam la nga xam ne dafay lore mi ne waan yaxfad waan yuxibba mu bëgg lillaahi ngir yàlla mi ne waan yuxibba mu bëgg lillaahi ngir yàlla wa yubrida muy bañ tamit lahu ngir yàlla buy muy bañ tamit mbañeel gi tamit na nekk yàlla booy bëgg bëggal ngir yàlla booy bañ bëggal ngir yàlla nit ki boo fekkee da nga koo bëgg bëgg koy te yàlla tax bu fekkee nag mënoo ànd ak moom ne nekk ñàkk ànd gi ngir yàlla tax waaye du ànd intérêt dañuy ànd ngir intérêt waaw bu nguur gi ñëwee taxawoo nañ ànd ngir nguur gaa ngi ci mu fal la tey ngeen ànd ak moom ëllëg mu wàccee la nga koy xas dëgg-dëgg loolu moom julli ñu war nañ ko moytu waaw wayar daanay gërëm lahu ñeel ko ngir maane tamit na nekk ngir yàlla tamit wayar daba booy mer tamit lahu na nekk ngir yàlla jullit bi lii yëpp bu koy def na nekk yàlla rek parce que bàyyi radiyallahu dañ ko mas a laaj ndax jullit na politique mi ne waaw waaw mi ne politique jullit mooy yëkkati raayal islam mi ne way amuru nay digle bil ma'ruf ci lu baax wa xa nay tere tamit anil munkari ci lu ñaaw wa yaxrumu xaraam dana xaraam alay ci moom ci kan mukallaf bi li wax nit ki nag buñ ne mukallaf bi boo buggee li araf daa ne ku ku loo loo loo xale woo waxamaane ko garab gu tooy boo buggee mu jub danga koy jubbanti ba muy nekk ba mu nekkee ci tooy ba garab bu nekkee ci tooy tooy ba lañ koy jubbanti boo bàyyee ba mu màgg jubbanti ko da koy damm kon nag xale bi boo buggee mu bañ di def jikko yii mu lay timal da koy tàmmal mi nekk xale lan lañ xaraamal ci mu kala mooy alkazib mooy nar wal xibatu rambaaj wan namimu wante xibatu jëw wan namimatu ak rambaaj yëpp yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ci xadis yi nga xam ne xadis yu bari la iyyaakum wal kasb mi ne fa inal kasba yahdi ilal fujur gis nga wax nañu moytu gudd la na ngeen moytu feeñ ndaxte feeñ dafay jubal nit ki ci kàccoor te kàccoor daf lay yóbbu ci safara ci mbon te mbon daf lay yóbbu ci safara fi wax ne laay ruxul jannatu nammaamun eh, aljana du nammaam rambaaj du dugg wal kibru rëy waxaat ne laa yadxul jannata man kaana fi xalbi mithqaala xabbati min alkibar kenn du dugg aljana nga xam ne lu toll ni pepp nange bu nekkee ci rëy ci yow min du dugg aljana kon yëpp ay jikko yi nga xam ne jullit bi ko moytu nag ñu tàmmal ko ko bi muy nekk gone mi ne wal oj bu yéemu yéemulu foo dem rek bëggoon ñu ne waajaa ngi wati ngistal wa sumaatu déggtal def pour ñu dégg la yi ay jikko yi nga xam ne la yu bari ñun la waaw dañuy wax ne ñun suñ politiciens yu bëri parfois si ñenn ñi bala ñoo def rek campagne jot bu campagne jotee looloon laaj am ko waaye bu campagne jeexee fàtt nañ loolu yooyu moom jikko la ñu war a bàyyi la si société bi yëpp la nekk nag waaye dañ ko war a baax ñun ñëpp sax wal xasadu kañaan wal buxul ak mbañeel yi ay jikko ya nga xam ne la jull bu ne war na ko moytu war utul fa di gis ngëneel alal xëy ci keneen gisal ne ngëneel ci loxo yàlla la ne walika fadlullahi yutihi ma yashaa ngëneelu yàlla yàlla moo koy jox ko soob wa annal fadla bi yadillaahi nga leen ci loxo yàlla ne mi ne wal hamazu ak piis wal ak muubi ay xeet yi nga xam ne nit ñi dañu ko di ko def ci alquran wax waylun li kulli humazatin lumaza alladi jamaa maalan wa addada hmm, muy jikko yi nga xam ne la uh, yahud yéefédu ëllëgi dañ di démb dañ koy doon ñu war koy moytu nag waaw wax fekkee ngeen toog nit wax ngeen koy piisante wala ngeen koy móobi parce que dangeen ko bëgg a doya dal wan ko ne du dara yooyu jikko yi nga xam ne jullit da nga ko war a maay bu baax wal abathu caaxaan wa xas nit ŋàññi ko ŋàññil yàlla ko yaa lazina amanu laa yasxar qawmin qawmin nañ bay di ŋàññante waaw parce que ki ngay ŋàññi xamoo ci lu bari def ko rek ngir parce que dañoo bokk jotaay bi wala dañoo bokk koñ bi mun am muy def la damay def ma bëgg koo fexe nit ñi baax ko wala nit ñi soju ko ñëw ci man may koy ŋàññi di ko wax kaddu nga xam ne loolu rafetul nañ ko moytu wa dina ak njaaro wa nadaru xool ilal ajnabi ci jàmbur du sa jabar du sa yaay du sa takki jabar ñii nga xam ne dañ laa xaraam nga takk leen ko doole na xool li ko ajnabi wata lazuz ak bànneex bi kalaamee ci waxam loolu lu ñu war moytu la waaw taal ko xale bi waxam dafa ma neex bulul bulul mu xaram dafa xaraam ci yow nga def ko ñu bëri nag dañ koy def foog ne dara newu ci waaye ay détails ya nga xam ne lu ndaw la nga xam ne la dafay feebar xol bi lay lakk rek day dem mujj gi sax xol bi day dem ba muur ko ba lu baax day jafe nga dégg ko lekk am waala naas alalu jirim yi alalu nit ñi bi xëy di tuy bi naf si lu seen tey ak bakkan lekk nga alalu nit ñi parce que lu seen tey ak bakkan da nga leen nax lekk ko damay yóbbu nit ñi bitim réew nit ñi jox la seen alal nga nax leen lekk ko waaw boo ma joxee alal boo ma joxee xaalis ma defal la nangam ma defal la nangam nga nax ko lekk ko mën naa faj lii mën naa faj lépp du dëgg loolu yëpp lekk alalu nit ñi bi xeet wala ak lekk ko bi safaati sàmm aw bi diini wala ci diine waaw moo xam ci sàmm la wala ci diine waaw fexe leen nax won leen am nga loo man am nga loo leen mën a defal am na loo leen mën a fegal ngir buñ la ko joxee nga def ko loolu yëpp dañ ko moytu loolu nag si gillu gàtt rek mooy ñii sëriñ sëriñ lu rek képp kuy sëriñ sëriñ lu sëriñ daal da ngay pare sa bopp mën a li gi firiñ ak taali moy lan ki nga xamné dafa mëna préparer ci bopam nga ñëw man la jappalé man la défal ba nga pare géej la maître nazar bi bo ñëwee day japp sa lox and ak yow dugg ci biir géej gi wan la ni ñi féyé bo mu bayil sa lox wayé yow man may maître bi ba faw yow yaay taali ba faw lolu mom du jàngale bi ala alaa kulli hal ñu ngeen fi ba benen yoon eh, di len ndokkeel bu baax di wax ne li jup ci borom li ci la. Uras info xibar yi gaaw te Uras info l'info à temps réel. Uras info. jangat yu xóot te dëggu notre force le traitement de l'info.